société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen di may seen de presse dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéen i kaay ñu xëyandoo yéen i kaay gi di réew mi quotidien xëy ñu xibaar naan ñu neexul ba neexul waaye nag poste yëngu na jamono ji ñi nga xam ne ñooy liggéeyee poste maanaam mer nañu ba maara détaal yi journal bi nee na syndicat national des travailleurs de la poste ni ki démb amaloon nañu toogaanu ñaxtu ci direction bu poste ngir nag ñaawlu jafe fa fekk police leen fa fekk maanaam dóor leen ay grenade lacrymogène ba maara day taali mën nga dañu leen a dóor ay grenade lacrymogène ba kenn xàmmeewul sa ngoroma journal bii di bés bi nee na liggéeykat nga xam ne ñoo nekk poste dikki démb sa seen toogaanu ñaxtu boobee mën a nga grenade yi nga xam na ñoo si ay gaañu-gaañu yu métte métte mën ay blessé grave yéene kaay gi di réew ko di jëne ko may ma yeggale en ñi nga andi mën a la gis nga ñi nga xam na ñoo nekk ci poste ñu nee na nañu état bu Sénégal wàllum politique moo tax mu bëgg a li nga xam ne nag mooy poste waaye ne ki nga xam ne mooy Abdoulaye Bibi Baldé nee ma directeur général bu poste moom nag dañu ko war a dàq yéen a kaay gii de la sa nee na en tout cas li am ba des sall mooy kër gii di poste buñ ci jugul maanaam ci nërmeelu la jëm su dee sax nërmeeluwul ba pare ndax nag mën la gis nga cinq mille francs cinq mille francs junni amul kenn koo xam ne mën na koo retiré fi nga xam ne nag mooy poste mën a gis nga liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk ci administration bi agent de l'état yi xam ne ñoo dem retraite xam ne seeni salaire ci poste la ñu koy jaarale mën na la gis nga ba léegi France dali xëdd na amul lenn loo xam ne mën nañu ko jota su dee nag ñi nga xam ne ñu liggéeyee poste ñoom toog nañu ñaari weer yoo xamante ne jotuñu seen salaire moo tax ñoom mer nañu ba maara détaali liggéeykatu poste yi ndax nee nañu jotuñu seeni salaire ñoom ñoo ngi say jafe-jafe yoo xamante ni maara détaali ndax ñoom mënuñoo sax inscrire seeni doom ndax école ubbi na seen doom yi war a jàngi war a jënd fourniture yéene kaay gi de la turbine ñu xëy fekk fa Massar Thioune xam ne contrôleur des postes la Massar Thioune mi nii nee na mi nga xam ne ay jamono moo jiite woon poste ma ne la gis nga gis nga gis nga Siré Dia bàyyi xam ne toll na ci cent quatre-vingts milliards la fa Siré Dia bàyyi te loolee ci li nga xam ne moo andi ay jafe-jafe kër gii di waa Siré Dia moom fan la nekk journal bi nee na Siré Dia ma nga lonaas ma nga lonaas yéen a di la xëy di ñu xibaar naan ñu lu ci fanweer ak ñaar ci ay milliards moo ne mes ne menteñ jamono ji réew mi tàng na lool ma ne la gis nga ñi nga xam ne ñooy ñaxtu bëri boo demee ci université yi ma ne la gis nga ñoo ngi gréew boo demee ci ministère bi ñu dénk wàllum napp gi nee ma soo demee ci ministère bi ñu dénk wàllum sàmm gi ma ne la gis nga ñoo ngi gréew ma ne la gis nga boo demee poste ñoom tim ñoo ngi gréew wàllu wér yaram gi ñoo ngi ñaxtu wàllum collectivité territoriale yi ma ne la ñoom tim ñoo ngi ñaxtu ma ne la dëkk bi fépp cher na métti na ci askan wi ba maara di tale yéen kaay gii di réew mi quotidien xëy dañu xibaar naan ñu Aminata Touré ak proposition de loi bii ma ne la gis nga gis nga gis nga Aminata Touré ma ne la bataille politique c'est la Aminata Touré nekk Macky ala lay defante la moom Aminata Touré ndax xam na ne proposition de loi bi du jàll maanaam Aminata Touré dafa bëgg loo bàyyi xel bi na leen Macky Sall ci boppam maanaam ak njabootam la jël dugal leen ci ni nga xam ne moom la ñu yoree réew mi waaye nag Aminata Touré moom ci boppam xam na ne sunu constitution bi nag dafay dàq lu jëm ci wàllum discrimination mën na la gis nga lu jëm ci wàllum dret wàllum xeet wàllum waaso wàllum raison ak wàllum gëm-gëm yéen a kaay gi nag nee na waaye Aminata Touré mën na la gis nga bu gañewul juridiquement mën na la moralement ak politiquement Aminata Touré mën naa gañe ndax gis nga fii ci réew mi maanaam yéenewul maanaam benn yoon njiitu réew mi jël ak njabootam yépp dugal leen ci biir gouvernement bi maam jaara faam bu PDS nee na Aminata Touré mii dana wéet ci xeex bi de ndax ñun waa PDS duñu ko jàppale benn yoona ndax nag fàtte xëju fii ñu fekk néeg yi seen yëpp xàmmee ñu ko moom maam jaara faam nee na Karim Wade ak ko dal Biba Bourgi ak li ko dal Aïda Ndiongue ak li ko dal ak ñeneen ak ñeneen loolee lépp mën na la gis nga Aminata Touré la waaye nag ñooñee seen a jamono ji moo këpp ci Aminata Touré bu mun a xaar waa PDS di ko jàppale yéen a kaay kii de la sa nee na nag Aminata Touré mën na la gis nga dégg la ci tànku Macky Sall bi Aminata Touré nag dafa bëgg radical comme ni Ousmane Sonko radicalé yéen a kaay gii di Vox Populi ñu xëy fekk fa Abdoulaye Timbo mbokku Macky Sall Abdoulaye Timbo nee na Aminata Touré tey jii bu fekkoon mu jiite assemblée nationale nga proposition de loi bi mën na nga du ko déposé de i kaay gi de libération ñu xëy fekk fa Ansou Sané mi nga xam ne sa si gi coora nee na yii ñu génn moom ak Aliou Sall rakku Macky Sall ñoo doon fi nga xam ne mooy géej waaye waaye xanaa Aminata Touré dafa fàtte ne yii ñu génn moom ak Mansour Faye gorob Macky sa Saint-Louis ñoo àndoon doon battre campagne yéen i gi de la tribune xëy dañu xibaar leer laan ñu mbiri aji saara Ousmane Sonko ba léegi pënd ba wureegu la ndax nag suba ci alxames ji la ñu convoqué Ousmane Sonko doyen ne juge moo ko convoqué yéen a kaay gi la turbine xëy di laaj nee na Sonko mi nga xam ne convoqué nañ ko ndax nag dina wax ay militant ñu daal di génn ab laaj la yéen a kaay gi de les échos nee lu jëm ci fardok François bu ba léegi nag njaw ma ngi wéy di desul na ndax nag procureur sàkk nañu ubbi sib information judiciaire na la gis nga dossier bi juge ñu ko dénk yéen a Touré Malick Gakou yàkk na musiba ak mbelengaan Macky Sall Malick Gakou nee na gis nga Macky Sall bu leen waxee na leen mën naa saafara jafe-jafe réew mi da leen di nax ndax yow koo xam ne ba ñu la dénkee réew mi ba léegi amul lenn lu am solo loo fi def il est incompétent la Sall du samay kaddu kaddu yu Malick Gakou la damay ne moom Malick Gakou nee na jafe-jafe yi nga xamante ne askanu Sénégal ñoo ngi koy dund bu ko Macky Sall bëggoon a maanaam institution budget d'effort yi nga xamante ne amul benn njëriñ la fii jëlee train de vie de l'État ñu wàññi bi ñu wàññi ko def ko cinq ministres yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu escroquerie gis nga ñi nga xam ne ñoo ngi leen di nax ci lu jëm ci wàllum suuf wàllum terrain bëri na lool ci réew mi am na ñeenti agent Senelec yoo xam ne benn waay bu tudd Ali Malik Sow di ab ingénieur dëkk Pikine moo leen nax jël si ñoom lu toll si juróom-ñeenti millions waxoon na leen dinaa leen jox ay terrain waaye ba léegi France ali xëdde na yéen a kaay gi sunu lamb xëy di ñu xibaar ñu combat Balla Gaye numéro 2 ak Boy Niang combat boobee du yomb Balla Gaye nee na lii du